salaire wu Sénégal euh, salaire de salaire de misérable la ñu baal ma si kàddu bi. c'est-à-dire que sooy dama naan néew na néew goo xam ne euh, dégg nga maam mënut a faj dara. xam nga le SMIC a été relevé de onze pour cent. Euh, sous Macky Sall. parce que salaire minimum bi ñu doon am Sénégal cinquante huit mille neuf cent francs la woon. cinquante huit mille neuf cent francs ñu yokk ko mu dem soixante quatre mille deux cent vingt trois francs CFA. 64 223 francs CFA waaye jamono ji 64 000 ku ko fayee ko 65 000 day faatu lan ngay jënd bu dee yow da nga da nga da nga da nga loué sat néeg sat mënoo ko fay c'est pas possible tu ne peux pas manger mënoo lekk mënoo naan mënoo assurer sa doom dara sa soxna munoo ko mënoo ko jàppale si dara 64 000 mille dis que encore une fois maanaam cest ko boo ko xaymaa mooy 64 euros matul sax 100 euros donc loolu lu ñu war a joyanti la lu ñu war a xolaat la te li ngeen wax ci syndicat yi mais moom la ñëpp di joytu boobu ba léegi. Mhm. c'est-à-dire que da xool ay organisation Sénégal ñoo dàq yooxu démocratie ak transparence alors qu'il n'y a jamais d'alternance ci organisation yooyee. tu sais la synthèse avait été créée en 68 par Senghor ba muy woo Madja en 68 c'était pour. diir diiru mbagg diiru mbagg. Mhm. diirante mbagg waaw di diirante mbagg ak UNTS bi fi nekkoon. Mhm. UNTS moo fi nekkoon syndicat bu am doole muy Union nationale des travailleurs du Sénégal ñu andi CNTS pour mu concurrencer UNTS et UNTS malheureusement dafa mujj euh, dee nànk-nànk ba daanaka CNTS moo fi nekkoon parce que c'était le parti socialiste moo fi nekkoon am doole. Mhm. mais boo xoolee 68 de Madia Diop jusqu'à jusqu'à son rappel mais CNTS ñaari secrétaire général la sam te 68 laa la wax. à ah, 2024. oui te ah war na ma Madio Diop moo ko jiite. Ah, fa ba mu faatoo kan moo ko remplacé. Mody Guiro kan moo fi nekk ba tey. Mody Guiro jeex na. waaw. c'est <laughs> c'est assez révélateur. oui voilà donc boo demee tamit si yeneen syndicats yi majoritairement malheureusement loolu la. Hmm. moo tax syndicats dañoo dem ba wëlbatiku nekk comme ay parti politique. c'est-à-dire que ay FC ay A authentique ay B ak yooyu rek ak ay central C yooyu rek moo fi am. Mhm. pour parce que comme parti politique yi. ku mer gédd. créé benn benn benn syndicat. benn bu ñëw wut xar wut wut wut wut euh, wut mer euh, syndicat mer ngemb. Mhm. dans le temps il y avait véritablement euh, premier mai c'était vivant. Mhm. parce que tamit en en tant qu'étudiant bokk nañu ci défilé yi lu bari ci premier mai. nekkul woon comme lu xew léegi. Mm. c'est-à-dire que da nga naan dem premier mai nga daan da nga naan jaay jaay ay journaux si premier mai boobu ñu ngi nekk université yàggut. da nga naan jaay ay pins yàggut. Mm-hmm. da nga daan dem dans la sensibilisation des travailleurs oui. Mm. oui de engagé danga da daan dem dans la sensibilisation des travailleurs pour ñu gën a xam seen àq ak seen ay yelleef. Mm-hmm. à la bourse du travail def naa ni. le ce premier mai sept heures du matin moom fekkaat na ma fa man ak sama ay moroom yoo xam ne jarumay tudd seen tur je te dis mhm. engagé da nga daan xëy dem société de transport public dem waxtaan ak travailleur da nga daan xëy dem ñu jox la paas nga dem ba Thiès dem NST ak itamit et cetera donc c' pour juste dire que engagement bi nga daan gis syndicat porte ko jamono yi dafa néew moo tax. sénégalais biy jooytu rabattre si kii nga xam ne dañ koy duppee activiste wala lanceur d'alerte. ñoom la jël comme mais mais mais euh, dernièrement comme day fàttu ni mu ko waxee tout à l'heure ñoom ñoo gën a nekk au devant de la scène ñoom lañ même travail ku ci am problème collectif bu judd ci ñoom lay dem pour ñu mën a dégg seen ay ay. parce que ce sont eux malheur qui ce sont eux qui aujourd'hui portent le combat des travailleurs. Mm-hmm. tey jii les syndicats sont restés amorphes. Mm-hmm. les syndicats tey nga kañ nga gëj a dégg ñu ne la les centrales syndicales au Sénégal se sont retrouvées pour mën a jooytu euh, la nga xam ne liggéeykat mi ngi koy jànkonteel dans tous les secteurs professionnels je dis bien gëj naa am la le premier mai ce n'est pas une occasion de remise de cahier de doléances uniquement c'est-à-dire que les syndicats doivent se réinventer. et sur cette euh, euh, ci remise boobu noonu Abdoulaye depuis ay at nii à chaque fois loolu la ñuy assister ñu yóbbu dem kii président bi toog ak ñoom wax ak ñoom bu ñu paree ñu daal di dem. seen kii muy secteur bu ci nekk. malheureusement mais tey jii euh, ba tey lan moo war a doon. moo tax ma ne la moo tax ma ne la dëggoo ma ne la les syndicats doivent se réinventer. Mhm. xam nga dafa amoon y avait des figures qu'on le veuille charismatique et emblématique yu nekkoon ci biir syndicat yi. da nga daan dégg Mamadou Diop Castoro dafa am lu mu lu woon ak passage am ci xeexum politique ak démocratie dans la clandestinité da nga daan dégg ñoom Iba Ndiaye Diadji c'est-à-dire que da daan dégg yeneen tour yoo xam ne en réalité ay ñoom madame Dansokho et consort danga leen daan seen bu baax ci li nga xam mooy porte combat. et puis de manière engagée et de manière désintéressée. infatigable euh, Sidya Ndiaye. oui ça passe xam nga ak euh, monsieur euh, ak le le l' ancien secrétaire général de la CSA Diouf. Mamadou ah, Diouf et consorts c'est-à-dire que tu sentais réellement que ñii ils portaient le combat ils ils organisaient ay sit-in ils organisaient nangam nangam nangam nangam. Mm-hmm. je rappelle que feu le professeur Maguette Thiam. yàlla na ko yàlla yërëm. nitu xam-xam. ku désintéressé. ku dund véritablement de manière désintéressée si lépp li nga xam ne mooy bëgg-bëggu àdduna yéen day faat xam ngeen ku baax. di jëtewu fi PIT ba ñuy lancé ñoom seen syndicat dans le cadre de du euh, de l' enseignement supérieur. d'accord xool. façon guñ ko engagé ak nañ ko doxee. Mhm. nga xam ne lii nii ñëwuñu fi pour wut ay strapontin. Mhm. wuru maanaam wuruñu fi wut ñëw nekk defuñu ko pour wut ay poste wala pour wut ay dërëm. Mhm. dafa am na doon liggéeyee. moo taxit jamono ji. il faut quand même que ñu replacer le travailleur au centre. véritablement du débat. tra liggéeykat bi dafa war a nekk au centre. aujourd'hui tu entres dans beaucoup d'entreprises intérimaires yi ñu ngi bëgg a dee. y a des intérimaires yoo xam ne ñu ngi nekk intérimaires depuis vingt ans. depuis vingt ans directeur ba fa ne wala kilifa ba fa nekk il préfère des recrutements politiques avec une CDIsation à la base alors que nit ki fekk nga si mu am xam-xam maîtriser liggéey bi regarde le secteur des travailleurs de l'hydraulique pratiquement statut de bénévole sax la ñu am alors que lu paan dans le monde rural si wàllu ndox en réalité ñooñu ñoo koy ñoom Babacar li yooyu ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy dem ñoom ñoo koy dem dépanner il faut quand même que day faatu nga kii avec ta permission mhm. pour daaneel foofu il faut que liggéeykatu Sénégal yi ñu delloo leen euh, gëdd bi tey jii nii dans beaucoup d'entreprises on viole systématiquement et de manière je ce n'est ce n'est plus une violation systématique mhm. c'était devenu depuis lors une violation systémique par rapport ak li nga xam ni mooy ak ak bi soxal liggéeykat bi mhm. le travailleur aujourd'hui nga xool ñaata ba tey ñoo fiy fayeeku par billetage sans contrat alors qu'ils sont dans les entreprises depuis quinze ans depuis vingt ans bu ñu demee banque ba daanaka bu ñu ko def dugalee carte ba génne mooy jeex na après trois jours la dañ koy dem li lijjanti ji waat les les retraités comme combien sont-ils suñu papa yi suñu yaay yi waroon noppaleku ils sont obligés de faatu di dem wuti waat leneen ak leneen pour lan parce que njaboot gi liggéeyu te ñoom la ñuy am ci pension néew na. donc donc il faut impérativement wala il faut impérativement que yooyu tam ñu jël ko à bras le corps. Mm-hmm. pour que la fonction publique. Mm-hmm. ma jeexal foofu. Mm-hmm. ma daaneel la fonction publique. bu ñu naan le nombre de fonctionnaires. man gàpp naa ni de Senghor à Macky Sall je dis de Senghor à Macky Sall du lu ñu war a mën a euh, nu ko waxee. Euh, kii. du lu ñu war ndamoo. du lu ñu war a mën a ndamoo. parce que en réalité Sénégal. man jàpp naa ne tollu nañu benn niveau boo xam ne war nañu mën a liggéey de manière efficace et de manière efficiente à atteindre la barre des mêmes 500 000 fonctionnaires au Sénégal. oui parce que nous avons moins de 200 000 fonctionnaires et sur les moins de 200 000 n'oublions pas que nos frères nos sœurs nos nos parents enseignants ñu ngi fa ils représentent pratiquement 97 000. Mhm. aujourd'hui yow na ak ne faatu ak sëriñ. mais comment na naka la ñu war a mën a duggee fonction publique naka par quel mécanisme pour que véritablement ñu am administration performante à tout point de vue. comme le souhait du chef de l'État comme voilà comme ni ñu ko bëggee comme noonu ni ñu ko waxee. pour ñu liggéey liggéey goo xam ne Sénégal en réalité loo xool day dox. merci beaucoup loo gis day dox dinañ ci ñëwaat léegi dinañ ci ñëwaat léegi le temps ñu permettre ñi aussi euh, ku mel